ziar waa Fass boobu yëpp yëpp di leen ndokkeel macha allah macha allah من أزل سيدنا محمد يا رسول الله يا حبيب الله أنت خير خلق الله جمال خلق الله في تسل ما جن صرخ لمويل سيدنا محمد يكرم الخلق من خاف وممتعن وممتعن يا أفضل الناس يا أفضل في ذاتي وفي شيمي شيمي شيمي يا الانبياء يا يا من شفاعته صرخ للين مويون انا ني بغا ام دوم بو تودي كو سيدنا محمد في تسليم تاكو انا ني سين دوم du sayduna muhammad def len ni ma gis len ana ñi bëgg dem baytul haram jóge fa dem madinatul munawwara ziyara ci sayduna muhammad def len ni ma gis len def len ni ma gis leen muhammad rasulallah ya gën muhammad rasulallah ya raw muhammad rasulallah ñu màkk moonu tere ñaaw ci sunu yonen نخم جنني في كفي سيدنا محمد لوي أنا نسوب بايو بسك بارك maam yi dana Cheikh Mbacke góor ga ne woon Gabon jaari maa yombe jaari li mbar wali ñibbi si Sénégal sopp juma ca Touba góor ga moo tawloo Serigne Modou Moustapha Mbacke ana soppi Serigne Touba sarxo leleen yóbbu nañ ko biro ba ca Ndar nan ko xaadim lii lu ko jar weddi yàlla mooy li la waar Bamba doomi maam jaara ana ñi bëgg soxna jaara bu sa borom poroxaan sëriñ Basiiroo ko màggal ca poroxaan bis ba yàlla naan bisran wa shukran wa ki mooy way juru Cheikh Muntaxa ana soppee Cheikh Muntaxa a neex borom day gën a baax Cheikh ki moo doon Sëriñ Tuuba ana ku kuy murit sarxol leel ca kaw ñu màggal sëriñ Tuuba ki mooy bàyyi sëriñ Fàllu Mbàkke borom gu gaaw gi fadlun asimun sërifun farisun fadlun Mbàkke mu ki mooy njiit te wasila lor dem na lor baawaan te dootul jeex abadan ku sopp Cheikh Fallou Mbacke xéewal wër la lor dëddu la wax naa fi ñu bëgg Sëñ Fallou néew ki mooy bàyyi Cheikh Abdoul Karim borom makaarimal axlaa alaaji fàllilooy sëriñ fàllu maamam shérif la bun shérifun bun shérifun bun shérifun cheikh fàllu mbàkke tuuma jubluwu la du xotti saati day fàttu du tas yaakaar du daw ku koy laaj ku laaj mu may la nga géejël cheikh fàllu mbàkke xanniyu la ana muhammadul muxtaaru maa la ko way yow cheikhuna fallu ya momi yef yi may ma ci la lawla ke seigne fallu lawla ke seigne fallu ki moy magi seigne Saaliw mbake borom japp ndal xabbaan borom laka nang kan borom dari njurul borom dari umul khura borom dari daaru khudus borom ñaari daaray canga boy seigne Saaliw mbake borom njowaan ka ca xay ka bay bayam ba bam banan aw ma dom seigne mbake taxul lul khadatul ujur wal بالتي والجسم وإني وإني وإني وإني سرين سالي أمك أنا مريدي أكباي فالي في تسولين بانجل سار خولي كي موي سامو مام شيخ إبراهيم فار لامبو باب المريدين ما ديغن ديم ما نخنا نجاي أمك فار سير نجاي ديم جبي نجاي إسجي فاتم بن لستو كابينغوني جي دمل فنجوغو دمل دي تلو دمل دمل دمل دمل سمبيا يا فار waaye ana soppay Seydil Hadji Malick bakk dara maan ana taalibe cheikh yi ana soppay Serigne Babacar Sy bakk rek dara maan aram loo maam Kumba Caam fa wadd farma joo Seydil Hadji Malick day jàng ak di jàngloo day topp ak di topploo day sàmm ak di sàmmloo lii la saxal ma soonu nax Seydil Hadji Malick jàngoo ma rëy na laay laay jëdëy sikkar loo loo yi doon nu nambal Cheikh Tidiane tubloo na cedd ana soppi maam Maodo teral na ñeeñ laajal Moussa Ale Mbaay daw góor bi rek Amadou Mbaye Maodo Ousmane ki mooy bàyyi Serigne Babacar si ndar ndar bi ana soppi Serigne Babacar si fi tasu leen ana soppi Serigne Babacar si sax xoole leen alibo miisal sambay na xalifa yaa Daba Ndiaye ana ñu bëgg yonent bi ana ñu bëgg yonent bi ndeke yow ma xiyaam sa parasol ba ku mu tiimu doo keeru ma yab ma yab dama ne dama ne ñi bëgg yonent bi laay wayal ana ngeen ana ngeen ndeke yow ma xiyaam متيم دوكيم أنا صبي أنا صبي أنا صبي وكو يومين دار جبل تخوني ممن لا وكو يومين دار جبل تخوني ممن لا وأنا بقول تبي a tuddee doom Seydina Mouhamad ku ko yónnee na jaral te jógal ni maman la ku ko yónnee ni maman la

maama yàq jàng yi Ibrahima a toogul du ma joxe micro bi nañu toog maama jàng jàng yi waa ASP yi ne leen utal fa ma toog jërëjëf nekk yonente yëkkati loxo daal di gàbbal na la julli Ai, você ila barham hoy rati mamo jara sunu tebe na wala ta daro bin tuba ana kuy moy wa khalaqa amrin nawfi kuy bay fal yombu damay mën a jéem damay fujóo damay déjalaw damel damel damel samba yaay awa damel damel damel samba yaay awa lu Bamba wax Maodo ko dëggal Tijaani ana taalibe Cheikh yi bu ma soppal Serigne Babacar Sy borom ma ne bu gaay mi fi na su ma na sa xolle Serigne Babacar góor gi naan naraw